waaye attention ñoom ñaar xeex bi la ilaha illallah fii la daan naan la daa mën a bëree ak mën a bëree boo yara caatu yoo makat ne di ñëw taxaw ànd ak Abdullah waaye yëmul foofu de door na ko mu daanu door na ko mu daanu laa ilaaha illallah ngeen fàtte mbokk yi kaay leen ñu daw gaaw fan lan jëm arène nationale. fu waay nekk rek si réew mi ak si bitim réew tey nag ki ñu dalal xam ngeen ko muy Alaaji Sa Touba borom football bi borom làmb ji ñu war a waxtaan ak moom nag ci combat bi nga xam ne taxaw na ci diggante Siteu ak Modou Lo parce que coow li moom bii paa moom coowam li ci ëpp Pikine la woon dem naa Pikine dem naa open presse ba coow li bëri na xaw ma bii nag dina dem jàmm gën. <laughs> ci tarkindaay xamu du dem mais ñu nuy waa réew mi ak waa bitim réew di leen jox seen wàccuwaay mboolem fu waay nekk si réew mi rek ak si bitim réew mbokk yi ñu ngi leen di béggee bu baax a baax waaye nag di nuyu sama sëriñ ba sëñ Fallou Maraaxib hmm, borom jàmm gën sëñ Fallou Mara maa ngi koy béggee bu baax a baax gëj naa koo dégg waaw comme man damaa bari xarit ku ci mel ne alaaji Samba Ndour ma ca Touba borom léppay baax ñu ngi koy siyaare alaaji Diagne efficace sëñ Mor Cissé ah macha allah boo limee da ngay jum alaaji Masila Diop waaye tey nag ki ñu toogal mooy alaaji Saa Touba ñi ngi lay nuyu baax a baax di la siyaare waaw ñi ngi santaat yàlla di julli ci yonent bi di gërëm suñuy waajur di ñaanal sëñ Muntaxa Mbàkke Basiiru suñu borom yàggal ko fi loolu te mu ànd ak wér ci dara ji yonent yàlla Muhammad ak mboolem kilifa diine gu ne ci réew mi ñi ngi sant yàlla baax a baax a baax Modou Anta di nuyu biir réew ak bitim réew bàyyi ñu kenn mm. képp koy dégg suñu kàddu ñu ngi lay ziar mm. di la ñaanal jàmm barke alxuraanul karim mm. sëñ bi combat Modou ak Siteu bett yenn amateurs yu bëri bett yenn supporters yu bari parce que dégg nañ fi ay mbokk lañ ñii ne ay goro lañ ñii ne du ñu bëre ba tey jàmbaar production décroché combat Siteu ak Modou Lo saison de lutte 2024 2025 pour mois de octobre ou novembre. waaw Modou Anta combat bi comme ni nga xam ne moom la ko Sénégal yëpp yëgee rek. Mm. bëri na ñu bari ñoo xam ne am nañ betteel. Mm. am ñoo xamante ni bettu leen. Mm. mais tey Modou mooy roi des arènes. waaw na benn temps bi pour récupérer. Mm. combat yi tas na adversaire yi tasaaroo nañ. Mm. Siteu moo fi desoon. Mm. yàlla dogal na it ñëpp xamoon nañ seen relation ñoom ñaar. mais liggéey liggéey la parce que da gis ñaar ñu bokk ndey ak baay ki nekk ci équipe bee ki nii ci équipe bi. te dañuy daje te dañuy daje ci biir terrain bi te tu tee buñ génnee ci terrain bi dañuy ànd àndaat sport dafa war a boole mais waru tàqale. ndax ndax gis nga diggante sita ak Modou. Mm. kenn ku ne am na bis sa moroom ñëw taxawu la ci. Mm. mais dañuy liggéey parce que lii mooy seen teraanga ñoom ñoo ko obse tey Modou dafa am lu mu lu mu wanee foofu. Mm. dafa am lu mu jàngale foofu parce que ëllëg bu bàyyee làmb. Mm. ñu xam ne lii Modou Lo defoon na ko kon bëri yi dañoo war a bëri seen biir. Mm. genn xaritoo ko bëri gi. bër bu ci bokkut ak sa morom koñ. bokkoo sa morom gox war ngaa mën a bëri ak moom. parce que teraanga làmb mooy seen teraanga. làmb mooy suñu culture nationale. tey Modou exemple lu wane foofu rek parce que am na lu mu doon xool du bëreeg Modou. du bëreeg Siteu. Mm. Siteu am na lu mu doon xool du bëreeg moom. Mm. mais xam na ne tey jii nii làmb ji mu ngi bëri dem foo xamante ni mun na yàqu. jéegi naan ay Siteu warut bëreeg kii di warut bëreeg kii di warut bëreeg kii loolu day yàq làmb. Mm-hmm. Modou Wo xool na li yàq làmb mu jëlee ko fi tey bis ki tey. mooy nit ki lu mu la jege jege te bokku leen tey bokku leen bàyyi bokku leen gox war ngeen a mën a bëre liggéey bu jeexee jeex na. c'est la première fois. nit bëri ak gorom wala ci man ci li ma xam. Modou maye soxna de. waaw Modou Modou ma maye soxna. waaw mais espoir la rek parce que kenn ku ne sa kër nga yóbbu. waaw ah, waaw. kenn ku ne sa kër la yóbbu vraiment. làmb la rek mënul jénn làmb. waaw ah. làmb la. waxtaan nañ staff yi waxtaan nañ ba déggoo di féliciter waa jàmbaar. Mm. combat bi taxaw na comme ni ko ñëpp déggee. Mm. ñu ngi ñaan yàlla yàlla yóbbu ñu ci ak jàmm ak salaam. Mm. barke Serigne Saliou. ah bee passé da nga doon dem Pikine nag di dem EDECA di dem open presse booy ñaa ci comme ni ko gars yi yëgee bi bi paa nag xamu di nga dugg jàmm gan jàmm gan de benn porte la porte aller sans retour la sans retour la. bi combat bi taxaw jàmm gën laa reere <laughs> jàmm gën nga. reere loolu <laughs> laa jógee léegi nii. ay sëñ bi. waaw jàmm gën laa jógee de. da nga demoon nooyali. non dama am ay soxla yu ma fa doxe woon nag damaa ñëw fekk combat bi taxaw mais boobu maa ngi jàmm li ñu naan eh. tombé waral rek xam naa moom bu fa taxaw noonu moom bu fekkoon. ah loolu <laughs> moom bu fi mu ne nii comme combat bi taxaw na moom jàmm gën moom xam naa ne da romb fooraa rek route nationale bi ngay jaar rek. mais non pourtant nag loolu du dara. su ma amee soxla jàmm gën dinaa dem doxi ko parce que gis nga làmb li ñuy wax rek sport la Siteu ak Modou ñooy bëre. ñoom ñaar ñooy dugg ci biir géew bi. Sa Touba ci liggéeyam la nekk. fu mu am soxla war faa doxi samay soxla dama ko fay doxi mais ay kii jàmm gën laa dëkk kii parcelle dëkk yooyu yëpp du ci làmb ji. làmb ji bëree wuñ ko jàmm gën bëree ko parcelle. wallaay Pikine la. ci côté boobu. ñu bàyyiwaat xel bu baax a baax sport bi diggante Siteu ak. Modou bu ko supporter yi ñaawal ma ko. buñ ko ñaawal ma ko. buñ ci buñ ci indi lu ñaaw parce que rafet na ba pare. Mhm. tey Modou ñëw na di bëreeg Siteu supporter yi nañ ànd ak seen xel. supporter seen mbër nag kenn terewul la ñu supporter seen mbër mais buñ ci dugal lu ñaaw ma ko. Mm. ba yàlla dogal ñu yegg ci ak jàmm ak salaam incha allahu rabbi. Mm. ok combat la boo xamante bi nii yaakaar naa ne ci côté ci côté de côté de popularité. ñëpp xalaat nañ ne mbooloo bi dina bëri parce que ñoom ñaar ñëpp am coow ñoom ñaar ñëpp am supporter jooju làmb ci côté tension bi yooyu nan nga ko gisee. non góobu ne nag tension bi dana ci am ñaar ñu joxante cër lañ. kenn ku ne am na respect boo jox sa morom. biir géew ba nag moom amul respect. mais làmb yi lu suur yi gën a wàññeeku lu bis yi gën a wàññeeku tension yi gën a yéeg. waaw ma ne tension bi moom mun na am ci yenn kii yi mais kaw mu am seen diggante ñoom ñaar seen diggante tension bi ci biir géew bi la. Mhm. parce que xam naa ne kenn du ci may sa morom dara. ok loolu moom xam naa ko. ok mais mais mais mais mais bi est-ce que ci yenn gars yi en boo doon wax est-ce na. est-ce que logique na pour ñu bëre parce que gars yi laaj bi nu samp mooy euh, Siteu daanul benn VIP Papa Sow bi nekk ci porte de VIP la daan ak Zarko mais boo dee xool guy gi da koo daan Sa daan ko Lac de daan ko daanul benn VIP jógee ci défaite bëre ci combat royal. mais Modou ko muy bëreel Modou mooy roi des arènes. ah mooy tànn de. mooy tànn fi mu toll nii am déet. Hmm. Modou da ngeen xool ci combat yi waaw. Modou dafa pare li des ci kaliram dafa xool dafa pare pour xool booy yi nga xamante ni. mosul bëree ak ñoom ba pare am def nañ ay preuve ci làmb mu jël leen di bëree ak ñoom. ok loolu la pare. pour def jël Siteu est-ce que du du du teggi Sa Thiès non Sa Thiès ci contrat la nekk ci làmb la nekk nit te làmbam jeexagul xamul lu mu fay fekk. waaw waaw ah loolu dara. ok ba tey ñenn ci bool-bool yi dañoo samp ab laaj. ne Modou dafa waxoon ne day pause matul 3 mois wala 4 mois mu jëlaat combat est-ce que du da doon yoxal ñoom Sa Thiès ak ñoom Amdi pour ñu am combat. mais loolu mu waxoon noonu ci la nekkoon da doon noppalu la wax. noppalu na kay ñu jox ko combat da koo jël. kenn xaaru ko ni bi muy noppalu kay bi muy noppalu kay daaw am ñu waroon taxaw rek xaar koo ne dañuy noppalu. Ah, mais loolu yëpp sax loolu yëpp du dara gis nga. Hmm. tey gars yi lamb mooy seen métier. waaw Tapha Tine ak Modou Lo seen bëre ak seen jiitu na suñu juddu. fii mbër bu ci mën di doon pour nga laalal sa morom. Mm-hmm. wallaahi la azim yàlla la so mm-hmm. Siteu Modou Lo kenn yaakaaru ko woon. Ah, ah. muy Modou muy Siteu muy ñun ñi nga xam ne ñooy ànd ak mm-hmm. kenn mosu ko woon yaakaar sa àdduna. mais sans sans su Siteu la loolu la yàlla dogal. nañ ko nangoo. yàlla moo tudd ne ñoom ñaar bis dana dox seen diggante. Mm. ñu war a jàmmaarloo. Mm. yàlla na ci yàlla xëpp ndox mu sedd guy. barke Serigne Saliou. Sa Touba ak làmb parce que dañu gis du waa parcelle kese ngay liggéeyal am na hors secteur yoo xamante bi nii chaque jour dañuy ñëw di la seet si nan nga mel ak waa làmb ba tax ñu bëri tey dañuy bëgg Sa Touba liggéeyal leen ci làmb. waa suturaal bi ma ci yàlla sama borom bi di suturaal nag. Mm-hmm. moo may dimbale ci lu bëri yaakaar yi di yokk. Mm-hmm. fu ne nit dafa jógee di ma yaakaar pour ma dimbale ko taxaw ko ci làmbam. Mm. maa ngi sant yàlla nag bu baax. Mm. ci suturaal bi may suturaal saa su ne su ma jëflanteeg nit ci mile làmb rek. Mm. yàlla sagal ma ci suturaal ma ci may ma ci ndam. ma koy sant yàlla bu baax a baax a baax nag. vraiment loolu kese la parce que nit ñi tam kenn moomu leen. bokk naa ci ñi mujj ñëw ci làmb. mais yàlla sama borom bi mu ngi ma ciy dimbale bu baax a baax maa ngi ciy sant yàlla alhamdulilah. loolu la rek yaakaar jee jeunesse bi am ci man. may jëflante ñoom nag ci dëgg. Hmm. loolu rek moo tax ñu jàpp ma vraiment. Hmm. Uh-huh. ok combat bi combat bi diisul. man combat moo diis. Siteu Modou diisul ci sa côté yow. <laughs> non man moom wax dëgg yàlla benn bis mënul diis sama côté parce que man sama lépp rek. mais yow li ma jaaxal tarkindaa yi say xarit lan moo tax ma ne la combat bi est-ce que du diis. waaw mais sport la. am na ci ñoo doon ñaanal. mais sport la. waaw moo tax ma ne la làmbu làmbu day boole mais du tàqale. waaw. xarit lañ. am na ñu ma ci jaxasool ñu bëri. Mm-hmm. mais nag du ci caag ni sama digganteeg Moodu la. Ah. li may wax chaque jour rek Moodu moom képp kuy jàmmaarloog moom. Mm-hmm. Mm-hmm. xaar day am. waaw damay ja da ngay moom. dëgg yàlla loolu yàlla def na ko. kon daal moom euh, Moodu ak Tarkindaay la Sa Touba ak Tarkindaay la. waaw non moom bu ñu nee Modou tarkintaay rek daanaka mat na daal mat na fépp daal wax dëgg yàlla. mais sport la rek mënut jënd sport. du jënd sport parce que comme li wax chaque jour rek vraiment. Hmm. Modou moom lu mu nekk maa ngi ci kaya. Hmm. wax dëgg ok ok am na solo ba tey bu euh, buñ wàccee tuuti am na ku nu la doon gis yaakaar naa ne ngeen di déggante lu bari bu ma juumul dégg naa ko senegal muy muy na làmp yi tàkk gars yi da dañoo waxoon ne du ñëw <laughs> coow li bëri woon na de. waaw Sénégal moo géet Sénégal moo baaxoon rek waaw moo géet maa ngi koy nuyu au passage moom sama hmm. xarit la sama nit la. dañuy déggante fan yi rek ñu ngi waxtaan lu bari vraiment. web mm. bi muy waaj yëpp ama trop tard incha allah du yàgg dara maa ngi ñëw Sénégal. Mm. vraiment démb itam. Mm. bi mu ñëwee gis nga bi nga fekk may def émission Ligue mais dafa romb sama chauffeur bi mu ne ci kaw rek. mu gaare oto daw ñëw yéeg ba ci kaw. Ah, fekk fi may defee émission bi. vraiment mu doon acte boo xam ne. vraiment rëy na trop ci man parce que won na ma yëg na ma daal. Mhm. ma koy ñaanal jàmm mooy Moguette Mouhamed Ndiaye. Mhm. yàlla sàmm ko taxaw ko. Mhm. mooy nit ku baax nag nit ku mën social. nit ku reconnaissant. nit ku am jom nit ku mën a muñ tey dégg lu ne teg ci tànkam te du tontu. macha allah ko ñaanal jàmm bu baax a baax. macha allah looy wax réew mi ak bitim réew. élection de sàccan nga fi wax ne élection yi gars yi ñii di xëccu ñoom ñëpp kenn du ci dem coow yi moom ñu ngi bëgg ba de xam naa foofu ngay jaar tàggoo. ah loolu comme li may wax chaque jour rek yàlla sama borom moom mooy xool lu ko neex def ko ci jàmm. Hmm. bi ma yàlla wonee ba génn taxaw na ñaar ñi tax nit ñi di rayante. kenn du hmm. dem élection. waaw muy Sonko muy Macky Sall. Hmm. te yaakaar naa ñoom ñaar kenn demu ci. dégg naa rek jàpp nañu élection yi. di ñaan ci réew mi jàmm rek. Mm-hmm. di wax Sénégal yi ñu ànd ak dal. Mm-hmm. jarul xeex jarul xuloo yàlla noppi na démb tey dara ñëw. Mm-hmm. war a jiitu yàlla tànn na ko. ki war a jiitu àdduna mënut a wax a wax a wax a jiitu. yàlla sunu borom mooy tànn jiit mooy xool ku ko neex mu teg ko ci kanam. macha allah yàlla ñu yàlla suturaan ak def ci réew mi jàmm dañ xam ne réew mi kenn mënu koo yàq. ndax sunu mag yi baax yi dañ fay jaar. fu sëriñ Tuubaa tëdd moom alaaji Maalik tëdd fa mhm. Baay Laay tëdd fa mhm. Baay Ñas tëdd fa Cheikh Omar Foutiyou Tall tëdd fa bu Kunta Jaasaan mhm. nit mënul jël njabootam làq ko di la jénne yow ngay reyante di sacrifier sa bopp ci loo xamante ni lu ne mun na la cee fekk après say bokk ñooy perte affaire yi ay carte la rek kenn ku ne dem ku amul carte demal wuti ko incha ku ne sa xol bi te nga yéene ko votel ko nga votel ko. loolu kese la. sëñ bi kontaan naa si yow bu baax di la jaajëfal. maa gën a kontaan nag. tey moom li tax waxtaan bi neexul lool xam nga dama xaw a soj. waay ma dama sonn mm-hmm. Mm-hmm. yi ak ñàkk a nelaw bi. Mm-hmm. coono yooyu moom xaw a jàpp. vraiment. mais maa ngi sant yàlla bu baax xam nga rek mënaguñoo développé bu baax a baax. ci combat bi mais comme que day door a taxaw nii. Mm-hmm. pour ñu xamal rek sénégalais yi ñu xam ne lii sport la. Mm-hmm. loolu la rek mais dara. macha nag du ñoo tëgg làmb ji. Ah. ñu bàyyi xel loolu. Mm-hmm. promoteurs yi ñoo xool tëgg leen saa tubaab it choisirul combat bi. mbër mbër yi ñoo choisiral seen bopp seen combat ñu tëgg ko saa tubaab li ci am mooy ànd ak mbëram. loolu rek laa ci am. macha taxaw sama mbër jàppale sama mbër maa ngi sant ñëpp. di ñëpp di gërëm ñëpp. vraiment di nuyu ku mel ne vraiment sama xarit Mor Cissé. maanaam jaama maa koy ñaanal jàmm bu baax a baax. Mm. capitaine bi ñoom Papi Seck gaa yëpp rek bàyyi ma kenn Serigne Ndiaye mm. Baba Kampal. Mm. Ahmed Anne Babacar Cissé vraiment sëñ Cissé mu sëñ Babacar si. sëñ Cissé borom tawféex. di ziar El Hadj Masila sama xarit moom it. nit ku baax sëñ Mor. bàyyiwuñ kenn daal. Ibu Diop Jogay gaa yëpp rek. ñu ngi siyaar di baal ñëpp àq di baalu ñëpp àq di nuyu itam Aïcha Diko mm. di nuyu Ousmane si si Dias Der koy siyaar mm. bu baax di ko jox mm. wàccuwaayam di nuyu sama waay yi muy ci man di ku baax vraiment di ko ñaanal jàmm bu baax a baax a baax muy Serigne Abdoulaye Diouf macha allah maa koy ñaanal jàmm ci barki Serigne Saliou bi ñu bokk nit ku baax vraiment ëmb xam naa fi ma teg xam naa lu mu ma waaw vraiment muy nit ku baax nag. vraiment dafa ñaanal yàlla rek. voyage bi mu nekk nii yàlla defal ko ci tawféex mu ñëwaat ci jàmm. vraiment di nuyu bawol bawol yëpp nag. jërëjëf kullu bawol bawol rek comme ni ko mbay guy gi di waxee kuraan yokkal ba jaay la rek. <laughs> maa ngi lay nuyu. waa PTSL Sandaga Colobane. bàyyiwuma kenn asalem. ñëpp maa bu mot la ma. Babacar moom sama waay la. Mhm. moom. du tay démb la. mais nag ma am koo xam ne dama koy nuyu. mais muy sama benn boy boo xam ne dafa sonn ci man. di dégg lu ne ngir man. Hmm. Hmm. a baax. lay bëggee baax. Hmm. mais dafa am benn boo xam ne bu nekk Touba. Tafa séeréer. bu mun a ñëw di sama xarit di sama lépp bëgguma trop nag. dégg lu ne ngir man. di gis lu ne ngir man muñ lu ne ngir man. di ko ñaanal jàmm bu baax a baax di ko tafaa ku ne ci kanam rek la ñuy xool tànk bi dëgg nit bu lay dàq jotu loolu mu forsaani la ko yàlla mooy xool lu ko neex def ko ci jaamam ñi ngi sant yàlla bu baax a baax ne ko fi mu tee rek na fa tee te nekk ci li mu nekk waaw moom gannaaw yàlla ak bi yàlla suturaal na ko mi ngi ci liggéeyam mm. yàlla nga koy suturaal mi ngi faj ay soxlaam yàlla nga koy defal taraanga te yàlla ñu koy defal ñun ñii itam ñun ñi nga xam ne ñun lay topp bëggal ñu boppam te yàlla tax kon yàlla na ko yàlla sàmm nit ku baax vraiment di nit ku sawar di ñuy ñawal ay ñaw yu baax nag ay bàyyi laat ay sëñ yoo xam ne amul fenn la ñuy dóoral vraiment di ko ñaanal yàlla bu baax baax moom Tafa vraiment daf ma bëgg ko daf ma xam fi toll ci man te sama rakk la sama rakk la daf ma bëgg trop waaw doomu day galaay waaw boo galaay moom dañuy tooñante foo ko fekk ak Fallou Diouf Fallou Diouf ñu ngi koy ziar bu baax a baax a baax moom itam xam moom it noonu la sonalee galaay di nuyu maam Cheikh Tunguni maam Cheikh bu ndaw maam Cheikh bu Baye Cheikh lay waaw maam Cheikh Tunguni moom maa ngi koy ziar bu baax a baax vraiment moom sama waay la waaw moom sama waay la daf may sonal tout temps awa gars yi gis nga bu ma bu ma nekkul Touba sax day woote téléphone. ne ma waaw sama addiye ji calculer ko yónnee ma ko. moom daa am fulla ci boppam ñu koy ziar bu baax a baax a baax. xam naa nag jàmm gën moom galaay laa fay faral di yónnee ko waaw ah, sama soxor moom xam naa mooy mooy dox course yi. <laughs> jërëjëf macha allah mbokk mi ngi noonu kon émission bi tey dañ koy may galaay bu aada Fass suma waaye borom parcelle unité 15 borom Touba.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 attention kon Caatu Yaraax waaye Gamou la Gamou Gueye li mu bëree Caatu Yaraax waaye Doudou Sané ak kat waaye Doudou Sané jàppante waaye attention ñoom ñaar la ilaha illallah fii la daan naan la daa mën a bëree gaaw gaaw fan lan jëm arène nationale